dégg nga yéen ñëpp gisoon nañu si réseaux sociaux daaw la woon ci weeru koor bi ah dégg vidéo bi yéen koy fàtte ko daaw laa ko defoon ci weeru koor bi def na doon na mu ngi si la cent cinq mille vues cent cinq mille gis nañ ko ak yeneen sites yi partage nañ ko ñun fii loolu lañ nekk def na sunu ñun ñu wax ni pare ci aadama def na lu dul yoon wax nañ ci pare nañ ci du sunu ennemi du ñëw moom ñun geeruñ ak moom parce que ñooy ennemi ñooy ennemi non non non parce que dañ koy woo mooy mu ñëwaat à la raison ñaaxarañ loo ba mu demee ci jàkka ji sina pare bu julli sax kàmba sëlmalagul sax ñu jël téléphone bi ko sina dama daloon ci kawam vidéo bi yéen gis ngeen ko ba këccëgam bi waaye di ko défendre xaw ma këccëg xaw ma xaw ma di ko défendre ñoom ay Foussa rek la ñuy défendre ñoom it mooy colon bi rek quoi parce que ñaaxal ñoo dem na sinap ba muy julli newul sax asalaamaaleykum mu jël téléphone bi commencé nii. ma génn dal si kawam ma gis benn këccëg jóge ba la naan ñaa ku baax la tabax na jumaa tabax na mooy affaire de sukk yooyu gisoo ma génn ma laay wal leen gars yi partagé leen ko ñun si loolu la ñuy nekk. ñun si loolu la nekk yàgg nañu di laaj na nag bon am na ñoo xam ñu dagg sama euh, euh, vidéo bu deux minutes dugal bu ñu xam contenu bi lan la fii mooy sama chaîne ah mais laaj yëpp fii laa koy defee. oui ça va. sant suñu borom. Euh, maa ngi maa ngi si YouTube bi maa ngi nekk tàggoo. non aada euh, aada moo munoo ma manqué de respect sama gars yi euh, je vous en prie amul problème dinaa ko accepté loolu incha allah rabbi waaw man euh, joxe naa sama kàddu dinaa la accepté loolu dinaa la fekk sa live léegi dans trois minutes incha allah rabbi parce que bëgguma mel ni dama daw sax mais comme da nga ma yëg peut ba di ma woo di ma sàkku ma ñëw sa live non non du question xool bu rafet de xool bu rafet moom yàlla ko rek mën naa ne instant bi damay tricher xool bu rafet moom. non sa sama sa sama baax moom li yàlla xam na man xam na du dëgg amul problème de maa ngi coupé sama live léegi après maa lay fekk sa naa du dem nag sax naa du ma ñëw sa live nee na da lay mais attends mais Adamo lan a piéger damay dugg live ba mu ko nekkal si jàmm c'est tout déggoo ma de eh eh Adama mu ngi nii di ma déglu Sénégal ñu ngi si saaga bëri na est-ce que man bu ma saagaa day tax suba du ma xëy liggéey mais arrêté dégg li mu wax loolu du Adamo euh, booy Adamo nga tudd dinaa cliquer léegi lien bi mais ma dans trois minutes dinaa ñëw sa live dama ne woon du ma ñëw moom sincèrement parler mais in incha allah non du question dañoo def wala leneen dégg déggoo du ma responsable du ma dara xale bu ndaw mais dam bu ma ñëwee bu ma ñëwee sa plateau nga ne danga ma fay saaga du ma la tontu si saaga parce que xam naa ni saaga moom ñëpp a ko mën du dëgg mais bu dee woo nga ma si waxtaan mën nañu wax mais bu dee da nga ñëw pour saaga Kaliphone saaga <laughs> Dalifort bi ma juddoo yàgg nañ ma fa saaga te wàññiwuma dara ah donc amul problème wax jee ngi gudd garaawal maa ngi fay ñëw dans trois minutes incha allah ok ok jaajëf ok non du question xam nga fu mu ne nii affaire xale ngay def ay gars yi dañoo kii di kii affaire seen affaire golo yooyu non non déggoo ma de Adamo yaa ngi bitim réew maa ngi bitim réew man du ma paa du meer xale bu ndaw laa comme yow am naa jot man am naa temps de gis nga ni nga amee temps noonu laa amee temps say live dama koy enregistré déggoo ma de. say live dama koy enregistré déggoo li ma la wax xanaa booy <laughs> yow déggoo de Kaliphone ngay waxal de waaw may ma may ma may ma may ma jot ni maa ngi ñëw incha allah waa plateau maa ngi ñëw incha allah ok ok gars yi ñu ngi bu ma ñëwee danga may attaqué ñu parce que loolu nga wax sa live mais man attaqué Adama moom mooy loolu ok c'est bon ok ok am na ñuy woote de sànq xaaral ma jël leen